sëriñ Sidi Muxtaar suñ borom bàyyi ko fi ci wér ay cëram di ñaanal sunu yaakaar tey ak ëllëg di Cheikh Mouhamad Muntaxam Cheikh Abdoul Bachir yàlla na ko suñ borom bay ci wér ay cëram Cheikh Moustapha moom sëriñ Bass dañuy sant yàlla bu baax mu mi nu mayoon daaw ñu fekke bis bii mayaat nu ñu fekke waat ko ren te alhamdulilahi rabbil alamin sa bokk yi fi daje woon daaw rek ñu ñu fa daje waat ren ak bokki taalibe yi di feddali sunu ñaan ci yow suñ borom dëgëral la wéral la ba nga jiite bis bi ay ati ati at ca nga ànd koog sarak yu tedd yi di sant bu baax mbollem comité de pilotage bi yoron magal gi diko saytu buñu duggé ci bir waxtaan wi par kenn dana leer waye kini niy tay moy kan Serigne basirou gey lañ koy tudde bu ñu ci tur bi rek mu doy waye serigne magal Diama ko jur Cheikh Adama ko jur moo njëkk a tàllal Cheikh Amadou Bamba ni ko jëbal na la sa bopp adduna ak àllaaxira keneen ku ko def ci ginnaaw am ko def kon bu nu amee tawfeex yi ñëw ci bisam bi ñu di ko màggal moom Serigne Bassirou te Cheikh Ahmadoul Bachir doomi Cheikh Ahmadou Bamba tarbiya ko ba noppi ci moom kon njaboot gi na seen xew dal na seen yaakaar dollitu te ngeen wéral pëstéef beeg yitte yi wax ji du jar muy gudd ndax xocc na te am na ci ñoo xam ne fi ñu jóge sori na dañuy daldi jublu ci liggéey bi nag ni ñu ko daan defe rekk lañ koy defe ki nuy gàttandul bis bi ci waxtaan di defal di ñu mu muxaddima ku noppi ci moom la ku nu jàngal la ba pare yaram ko teg ko ci yooru siratal mustaqim mu di ci yóbbu ay nit kooku mooy kan Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiol moom Serigne Bassirou Gueye kon mbokk yi dañuy àndandoo ñëpp teewul Cheikh Cheikh Ahmadou Mbacké billahi min asheytani irajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أكرم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبكي جلدي مبكي طالبي نيني yi نيب تي ني ñépp ci njabootug sëriñ Touba nga xam ne fuñ fi teew ci kër bu sëriñ tuuba defar boroom ñoom ñooy boroom kër googu rawatina njabootug Cheikh Mouhamadul Basir gi fi teew nga xam ne ñoom ginnaaw pas-pas bi ñu booleek ñoom seeni waajur ak sëñ Basiiru Gay daanaka ñoo bokk waajur ndax noonu la demee ci kër gi di nuyu mbooleem ku fi teew te bokk ci njabootug sëriñ Touba di nuyu mbooleem ku fi teew ca wooteef sëriñ Touba ba bokk kook Cheikh Adama mi meññi sëriñ Basiiru Gay mi ñu dajale fii di nuyu mbokki dëkkandoo yi di nuyu mbokki taalibe yi nga xam ne pas-pas moo ñu booleek ñoom ginnaaw nuyoo boobu murit bu jot ndigal daa sañu lu dul jëfe ko ñu jot ndigal ci kii nekkal sëriñ Basiiru Gay wurkuñ ci jamono jii ñuy wax muy Serigne Moustapha Guèye moom sëñ Bassirou géey mu jox ñu ndigalul ñu soññante ci li tax mu nekk ci seen kanam ndax nekkul ci seen kanam rekk pour daa war a nekk ci seen kanam déedéet daa am luñ ko bàyyee dénk ko ko am lu ko ci war moom sëñ Moustapha mi ci boppam moom mi nekk ci bopp kër gi am tamit lu war ñim nekk ci seen bopp loola moo de li mu war a fàttalee mu koy fàttalee ñun ñim koy fàttali ñu man di ko jëfe loolu moo sabab euh, kàddu yeeg yónnee gi sëriñ mu Moustapha nee na ginnaaw bi mu sante yàlla ci jàppandal gi mu ko jàppandal ba lépp sotti mu ngi soññu boppam di soññ mbooleem ku ko joxum nopp ci li fi indi woon yonent yépp indi fi mbooleem waaju baax ju fi mas a ñëw indi fi sëriñ tuubaa ba ba mu ko wootee ci coobare suñ boroom boroom kër gii ñu toog maamam Cheikh Adama Gueye moo njëkk a nangu woote ba moo njëkk a engagé wu kon kooku waa këram ban taxawaay lañ ci war a am sëriñ bi nag li mu woote woon mooy ak jub tënku ci siraatal mustaqim di jaamu yàlla ci ni ko yonent bi indee te bañ koo wàcc jaamu yàlla gi tamit nga teg ko ci yoon wa ko yàlla bëggee mooy jullit bu nekk am na lu yàlla farataal ci sa jëmm loola mooy sa farata ju njëkk sax bala ngaa doona murit ndax kenn mënta doona murit te doona jullit ginnaaw bi nga seeree ni amul benn buur bu dul yàlla yaa ko waxal sa bopp gëm ne moo yónni Muhammad te gëm nga li wax moo tax nga topp ko léegi nag dañ laa tegi sart yoo xam ne dafa am yoo xam ne mënoo koo ñàkk jëfe muy bu waxtu julli jotee loo jàpp danga ko war a bàyyi dem julli ji bu wéru koor jotee lo japp da ngay bayyi sa bën sa bànneex ak sa bëgg bëgg bop wéru wori ba mu jeex añ makka bu jotee bo amé lu ko man da koy def bu sa alal maté lu mata a asaka da nga koy def lool suñu borom da ko farata ci julit bu man di doon bala nga doon mourid ku ko xam nga jëfé ko ku ko xamut nga wuti ko la ko xamal ndax ñaka xam do lay li fiek ñu mëna xam xamle nekkun ci jamono te ñu mëna xam xamlee ngi fi Lolo nit lu nit meuna a lolo ndax lolu mom sëriñ bi mag ñiko ko won manam fekk nako ci ñom ndax mo leen manam xam lu li may wax ni mo leen andi won keur Mor ante seli ba ba ba ñewé fekk leen fa bañ jéblu loolu moy soñu bu ñëkk bi muy teggu ci diiné teggu ci juk benen bi ci des moy lan moo ñu wutaleeg ñiñ bokkal loolu ndax loolu jullit yépp a ci nekk ba sëñ Tuubaa di wax ne rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat mag ñaa ngi julli ndax sañu ñu koo bañ ñu ngi woor ndax sañu ñu koo bañ ñi ngi joxe asaka ndax sañu ñu koo bañ ñi ngi def lépp lu lislaam jiite ndax sañu ñu koo bañ ndax yàlla leen ko digal liñ bëgg a waxtaane nag mooy li ñu seppee ci ñuy jëfe loolu kese yu ñu ñu doone murit loolu mooy li sëñ rab bi rabbi asxaabaka bil himmati la ko wax himma mooy lan himma mooy yow jullit bi nga am geneen takku ci sa boroom akub yenentam am geneen dogu bu bokkut ak dogu gi nga xam ne jullit bi nga xam ne soobu ci himma moom la am loolu mooy ak taalube ak taalube mooy jullit gu mat sëkk ba noppi nga am beneen pas-pas ak góorgóorloo ku dogu boo xam ne du bokk li jullit ñëpp am loolu moo ñu booleeg sëriñ bi sëriñ bi nag xam naa nuñ koy defee nan la nit di jaar ba am himma jooju ñun ñu nangu ne ko jébbal nañ la suñ bopp adduna ak àllaaxira ngir wax jooju bañ dañ nag dañoo war a am ay melokaan yuñ mel te buñ xoolee ni jamono di doxee jamono mi ñuy bëgg a fëkk ndax niñ gisa jamono ji dafa mel ni ak taalube dañ koo bëgg andee neneen nu bees noo xam ne bokkut ak niñ xame sëriñ bi ak mag ñi ak bërki démboo njaay rek ki ñu ki ñu ki ñu fi dajale mën nañoo jël ci moom tegtal muy sëriñ ba Géey wër koñ kalimaatu sahaada yi moom lañuy wax ci làmmiñ loolu moo lay boole ci lislaam waaye ak taalibe benn baat rek moo ci ay wax mooy bi ngay ñëw ci sëriñ bi ne ko jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira la ñu def lépp ay jëf la ak pas-pas nit bu jébbalee boppam te njëbbal ga di dëgg moomatul dara ci boppam te sëriñ Touba mi nga xam ne moo ñu woo ñu jébbalu ci moom lim ñu woo gisaguñ ci jamono lu jar bàyyi ko lu dul ne jamono moo bëgg a soppiku ba ak taalibe léegi ñu bëgg koo teg rek ci diway sama sëriñ nga xam ne maanaam ni mel léegi daanaka affaire fan sa lay doon te loolu jaaduwul day yàqu taalibe nit du nax boppam sëriñ bi dañ koy topp di ko liggéeyal. bu laajee ñu jox ko waaye sëriñ Moustapha nee na moom mii mu gis jamono di ko doxe bu sañoon ñun ñëpp danañ bokk gën a góor góorlu ci taalube ndax sëriñ bi lim ñuy laaj ñu ko koy jox tooguñu suñ këri baay ñu fekk mu fekk ñu fa dañu ko laaj déedéet daa woor nañ ñëw wuy su ko ne ko liggéey bi ngay liggéeyal yàlla dañ ciy ànd ak yow ndegam liggéey bi muy liggéeyal yàlla dañ ci am pas-pasu ànd ak moom nag lum ñu ci woo rek borom ñoo amati soxla te sëriñ Touba dara mënu cee jëriñ nit lu dul jëf du ay wax ak murit mooy bu sëriñ bi wootee nga dem wuy liggéey bu laajee nga joxe mag ñi noonu lañ nekke woon ak moom loolu nag téewut nga war a def li la yàlla digal tere la ko li la yàlla tere nga bàyyi ko lim la digal nga def ko ndax mag ñii ngay dégg ñëpp di leen roy kenn ku ne ñu ne kër sàngam la bokk mag mooma lim daan jox sëriñ bi kenn ko xel xalam daj ko joxe ko ci ñun ñi amut te daawuñ faat waxtu daawuñ bàyyi leen seet morom digal li ñu war a def lépp dañ ko daan def kon daal ndegam daa gudd daa guddi te kilifa yi dafa xaw guddi wax ji mënta gudd waaye gudd gàtt daal mooy sëriñ bi nee na nañ soññantewaat ci teewlu bi yokk sunu taalube yokk sunu pas-pas ndax sëñ Moustapha kat jàmbaar la lool waaye li ëpp ci njàmbaaram daanaka doole boppam lay lay lay lay doxe te buñ nag suñu bopp nag sëñ Moustapha bu bu amee alali boppam jox ko sëriñ bi bu ëllëgee bu ñuy fay moom la ñuy fay képp ku debub sa dërëm doo ci jot nañ yokk suñu góor góorgóorlu yokk suñu taalibe yokk suñu pas-pas ci sëriñ bi Sen Moussa nak serigne bassirou Mbàkke tire Sen Moussa mi ngi lay sante bu baakha baakha baax neena na li nga def lepp gis nako te lo def ci dekk bi rek mom nga ko defal li nga def ñun ñepp gis nañ ko ñoo nga lay sante bu baakha baakha baax dila baax ko yef yi nak mom tay da muñ ta gudd kon ñu joxo ñi nga xamne ñoko wara ko di jéglu ci cadeau yu baakha baax ndax cadeau yu la señu ko bañ alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh du ñak nak tuuti ñu leer ci li nga xamne ni moom la Serigne Cheikh Mbacke mii doon waxtaane ak mbooloo mi eh, li tax ñu di ko leeral itam dafa toll ci jamono moo ko laaj ñu di ko leeral parce que mbooloo mi fi dajee wóolu ñu leen rek wax ne dañuy fàttaliku suñu bés gee rek def ay teraanga kenn ku ne ñibbi déedéet bis bii lañu am bis bii lañu laaj si message boo ama am solo ci mbokk taalibe bi ak mbokk sëriñ si ñoo xam ne dañoo bokk ak ñoom sëriñ Tuubaa mu melni fi jamono ji toll li ñu gis ñun xamuñu ko dama xala suñu bop bu baax tan mo symbolisé bis bi tan la mo seen bes Guèye dafa jëlee leppam jox serigne touba serigne touba yoro ko tayam ak elego bu len nax seen bop seen bes Guèye bu faato faatoon léegi mu yag ay doon yo xamna ay caat lan sax suñ doom daf leen a teral ndax lan liggéey bi sëñ Bassirou Gueye kon yéen taalibe yi xoolaat leen seen bopp bu baax a baax ndax liggéey bi sëñ Tuubaa moom du jóg ñu mën a def dañuy tedd waaye nag seen bopp te yéen a ngi yéen seen bopp lii xaw nag ñun xamuñu ko suñu xëyee jaxate yàlla na ko yàlla yërëm daf maa fekk ca ca poroxaan ma takk sama laxasaay di liggéey liggéey ba wàcc jot ma yor jutub alxuraan di jàng ñu daal di may nuyu ñu daal sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Basiru ma nekk ca barab ba daal may nuyu leen moom ñu kii doomi sëñ Basiru Géey la mu fekk may jàng alxuraan mu ne cëy suñu borom suñ ci moom mooy yéene kii de bàyyam mas na naa dox ba ci biir saalam fekk ko sëñ Bas Géey muy jàng alxuraan sëñ Ablaye ne ko moom Basiru la yor alxuraan mu ne ko mbàkk xanaa sopp xanaa boobu ko fi baax kooku moo joxal léppam sëñ Tuubaa moo tax sëñ Tuubaa fay terale ko àdduna ak alaaxira yéen gone laa waxal yéen ñi ma sañee waxal dellu leen ci teere bi mënu leen a julli di leen yóbbu àjjana mu leen a wóor leen yóbbu àjjana fi la ko sëñ Tuubaa fekk julli ak woor fi la ko sëñ Tuubaa fekk keroog ba mu jaayantee fekkoon na fànn xam-xam yëpp sëñ Seex Aadama xam waaye ba sëñ Tuubaa bindee xalimaam nga ni ku ma topp danga jëriñu àddina ak alaxira daa bàyyi léppam ànd ak moom moo tax ma jëriñu àddina ak alaxira exemplaire bi leen di wax bi gën a gàtt mooy borom dëkk bii ñësan bés gi dañ daraa jaawale sax ba waxee ñu ne Baye mu suub la àjjana ñu bay bëgg dem te jaamu yàlla fay yóbbu nit bu ne la cëkk yóbbu la ci ci àjjana kay ñaaka moo gën ngay jaamu yàlla ku bëre dem àjjana ku ne jàmm yàlla da nga jàmm da ngay dem da ngay dem da baatin bu mag bu am benn sikki sàkk bu fi waral lu nekk lu wax xam ko kon kooku su fi demee ba jóge fi ak njabootam nekk fi ngeen yaakaar ni ku fi dégg na nax seen bopp sëñ Tuubaa li mu defoon du fi jóg mukk li ci sëñ Tuubaa defoon du fi jóg mukk góor-góor leen te xoolaat seen bopp bis bii de yéen da ngay permis yéen a ko sos te bi yéen ko sos borom mi ngi fi kon man ñun bu ñu jàng fi xam fi ñëw leen ñun da leen di jàppale war ngeen a laxasaay benn laxasaay bu laxasaay bii ñun def teg ci 1000 francs wala nga bay sa tool bërëgub gerte jàppale def nga li nga def du dëkk du yoon te si Bassirou Guèye jii rek laa gisee màggal boo xam ne nii daayira yi tëgguñu si waa ñu yor màggal yëpp fii laa ko gisee fii laa xam ne dooñu ci suñu Bassirou Guèye jigéen ñoo ne ci wàññi fii laa ko gisee gisuma ko feneen xoolaa leen seen nag yéen a wax de àjjana ñaara ko yóbbu nit jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla du ngeen ne yoon de ñaari yoon moo ko yóbbu nit mooy jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla bu ñu ñëwee loolu tudd yàlla waaye moo jaamu yàlla waaye moo fi indi yàlla kenn waaye korkora ndax sa doom ay bala ngaa korkora sa xam di nga nekk borom bis bi wax bi ba bi bi ñuy faatu bàyyi fi ñaar fukki junni nag fukki jinn sa bayu ko fi ndax daf daa wax naan man sama doom duma ko fagu dara ci àddina yar rek ku ma sey gudd da laa ci dara ku ma sey gudd da laa ci dara te bu la sànnee ci dara bu amé ci soxla waaye tey ci ko de ndax fi mu tedd ay doom ñu ko ñaan suru alxuraan dañ ko mako rumbax man nañ ko tare ni ñu neex foo ñu ba nga la lañ alxuraan ci mënaay doomam lañ de ba muy yëkkati ñuy joxe alxuraan taxut jëmmi sëñ Tuubaa la moo taxoon ñu joxe sëñ mbokki taalibe yi ak sunu kilifa yi nga xamante ne bii ñooy kilifa jataay bi kenn ku nekk ñu koy nuyu ci turam ak santam boo ci dinañu gërëm ngërëm loo xam ne ci son xol lañ ko tibbee gannaaw ba loolu weesoo nag ma fas yéene waxtaan ak sëti sëriñ Bassirou Gueye ci liggéey bii nga xamante ne bii dañ koy liggéeyal suñu maam ju baax ji sëriñ Bassirou Gueye muy sët yi nga xamante ne bii mooy sëti sëriñ Bassirou Gueye di leen xamal ne ñun de suñ bunt ci sëriñ Touba sëriñ Bassirou Gueye la tey am na lu mu fi baax loolee mooy pas-pas ak Pastef te dañu koo fàgguloon démb tey soog a ñëw kon nag maa ngi soññ sët yi soññ koo xamante ne bii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem dina xamal ne day li nga xamante ne mooy liggéey bi ñuy liggéey suñu maam Serigne Bassirou Gueye képp koo xamante ne bii sërb Serigne Bassirou liggéey nga ñu woole si wuy si woo ñu laaj si joxe bu sa maam doon dund bu la woo doo ko wuy si bu la laajee doo ko jox kon nag suñu nijaay yi nga xamante ne bi ak mu ne ñu xamal nañu na ngeen gën a ndax te xam ne lii ci seeni loxo lay mujj ginnaaw ci suñu loxo lay mujj te ñoom téye nañ ko ba ñun ñu ñun ñu doon magi jëm ba xam xammee nañ fexe ba mujjul suñu loxo nga lawaay bu mu réer kon nag yéen ñi xam ne yéen a suñu nijaay di suñu yaay jël mbir mii bëgg koo yëkkati te ko ci suñu loxo li ngeen ñuy jàppale mooy kenn ku nekk ci yéen yor na ak njaboot njaboot googee ne ko soññ ci mu fas yéenee farlu ci liggéey sëñ Bassirou Gueye bii bu kenn ku ne jëlee ak njabootam lam bëgg ci ak njabootam nga xam ne ku ci fanaan àll balaa bëri set mu xam ci leen fanaan bu ko defee ci liggéey sëñ Bassirou Gueye bii dara jëm kanam su ngeen ko su ngeen ko bëggee teg suñuy loxo nag ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla ak yonente bi kenn ku nekk am nga ak njaboot sa njabootu bopp bi dañ koy jël dugal ko ci biir sët sëriñ Bassirou Gueye su ko defee taxawaay ba nga waroon a taxawee ñu taxawee ko su ko defee danañ danañ da ngeen noppalu ñun ñi ko jox daan noppalu waaye nag bu fekkente ne doxalin ñi nga xam ne moom lañ ciy dox nam war a mel melu ni du ngeen noppalu te ñun ñun ñi ngeen ko joxe duñ noppalu. gannaaw bu loolu weesoo mu ko nag ñëw ci ñi nga xamante ne bii mooy suñ sang bu baax bi fi nekk ñëw ci jotaay bi mbaa ma ne suñu sang yu baax yi tàmbale ci kilifa ki nga xamante ne bii moom lañ jox commune Tral bi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Moustapha Bassirou li nga xamal ne suñu xol day sedd na suñ xel dal na waaye nag la nga xamante ni moom lañ doon bëgg rek moom la ñuy bëgg tam nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax am na ci loo xam ni bët tege na ci awlu ngeen nag dañoo doon jëmm yoo xam ne dañoo neex a yilif ndax ci loo leen woo teroon deret sëriñ Tuubaa foofu na la yéenee topp duñ seet seet len len lu jox ko suñu bopp cent pour cent waaye nag suñ ko defee ba noppi it dañoo ñu xool suñu bopp ba xam la ñuy delloo na xam ne fii de dëkk bi dëkk sëñ ma ngay jama te sëñ ma ngay jama sëñ Touba gannaaw sëñ Touba sëñ Bassirou la séddoo ndax keroog ba mu faatoo Seydou Touré da ne sëñ Aliou Touré booba tey ci loxo sëñ Bassirou wàccoo nga ak man ginnaaw nag loolee moo doon dox démb ak bërki démb ñun ñu ñu ciy dox ba tey tey gis nañ ci wax dëgg yàlla taxawaay boo xamante ne bii wax dëgg yàlla diggante daaw ak ren yaa ngi ko ciy dox kon ñu ngi la ciy sant bu baax a baax sant boo xam su suñu xol lañ ko tibbee waaye nag bëgg-bëgg yéen nañ bëgg rek démb ak barki démb rek moom la ñuy bëgg moom rek la ñuy bëgg ñeesuwut dëkk bii rek ndax tey jii rek xawoon nañu am jafe-jafe ci gàllankoor waaye nag mbirum Sëriñ Tuubaa mooy mbir moo xamante ne bi lu ko nar a gàllankoor loolu Sëriñ Tuubaa saafara ndax diggante bi ma yónnee ma dem Tuubaa di ñëw jëli ab groupe bi ma daanaa ñëw li ne ma groupe bi dox na loolu nag mooy pàggatewum sëriñ Touba nga xamante ni lu mu fàggu rek lu ko a yàq loola sëriñ Touba dox sa diggante ak loola kon nag ñu lay sant bu baax a baax di sant mbooloo mi bu baax a baax di la xamal ne nag keroog ba ñu laxasaayoo ànd ak yow day sa bàyyi boole ñu ak yow dana woon Basiir mi dama ko def seen kanam ndax fu ngeen mënta joti mu àgg fa te bu ma àggee li ngeen bëgg dana ko mën a am ginnaaw nag sunu borom dimbali nañu bañ ànd ak yow boo nga bëgg nga am nañu dimbali ci li te it am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax waxtaan ci maam moo ab diir bu yàgg yàgg bu lamp yi nga xamante bi moom lañ fi installé tàkkee ñu dimbali ñu ba bu waxtu wi delloo dellu si yoon wi ni jaar oto yi di am jafe-jafe ñëw ñu fàkkal ñu ko diggante tiib ak fii sëñ Bassirou Mbacke Sokone lañ ko teg gannaaw ba loolu weesoo ma am yóbbante boo xam ne sëñ Bassirou maa ngi la koy yóbbante te xam nañ ne buñ la ko yóbbante da nga koy eggalee ci sous ak commandant brigade bu Kayel sëriñ Bassirou ñu ngi la yóbbante ci commandant brigade bu Kayel ak sous préfet na leen ndax Darou Gueye daa bokk ci carré arrondissement wala déet ba at jot nga teg ñu jiw yoon ne bind leen adressé ko sous préfet bind adressé ko commandant brigade bu Kayel te duñ gis sous préfet duñ gis ndawam duñ brigade bu Kayel ñu bëgg nga laajal ñu leen ba xam ndax carré ngeeg arrondissement bi Darou Gueye dañoo bokkul am déet bu fekkee zone rurale da cee bokk te am noo xamante bi gox bi ñu nekk dëkk bu nekk na muy doxee zone rurale da ko du doxee nañ ñu ko xamal bu ñu ko xamalee bu soobee yàlla taalibe yi taalibe yi sëñ Cheikh Adama rek ñoom ñëpp du jar kenn ci ku am ngeen di wax ak ñoom man mun taxaa sam mi gën a xeebu ñoom maanaam leen commune Tra bi nee nan ñi ngeen war a doxee doxewu leen ko ndax ñu soppeeku waaye bu fekkente ne li ñu wax suñu diggante ak ñoom dañ koy def ba mat sëkk te buñ geesoo duñ leen gis ba ñuy woote dañ ne kullu murit teg ci ne ku di ab jullit waaye bu doon aw lu ngeen képp fii daje duñu soxla sécurité waaye nag dañuy woote dañ ne képp koo xam ne yaakaar nga Sëriñ Tuubaa teg ci ne képp ku di ab jullit ginnaaw nag dañ ne képp ku di ab jullit tamit bu service jullit boo xam ne day def ak njubé daman teg ci yoon ñoo ñooñu tax di woote waaye du ko jot lil sous préfet ak commandant brigade gannaaw bu loolu weesoo nag ma tënk ci taalibe yi dina xamal ne ren day suñu borom dañoo fàttaliku bu baax a baax mus ñoo fàtte nawet bi ni mu war a mel mel nañ li war suñu diggante suñu borom mooy azaka ji nañ ko génne jox ko ñu ñëw doole bu ñu paree li war suñu diggante sëñ ñu génne muy hadiya asaka mooy ñoŋal alal addiya moo koy defal barke waaye nag mbay mbay ma mel na mu war a mel nga téye asaka ja téye addiya ja xel nanguwu ko ginnaaw suñu borom nee na jëlal juróom-ñeent yëpp jël ko jox moom benn ba waras na koo man addiyee mooy barkeel ab liggéey alal nag bu ñëwee nga koy yore ba déwén te ordonnance sax du ca génn bu ñëwee barke ñëw ci da ngay dend ko la gën a néew fuuf génne addiyee joxe asaka nga dem di ko laaj ndimbal wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. la hawla wala quwwata illa billah aliyil azim sa nga su tedd si ci sunu gannaaw maa leen di nuyu Eh, di leen sant bu baax di ñaan ci daraje sëriñ Muntaqa moom sëriñ Bachiru seenu fan ak seenu man yàlla jëm sa kanam ah yow sëriñ Moussa sëriñ Moustapha moom sëriñ Moussa nga xam na yaa jiite jotaayu kër sëriñ Bachiru ji sëriñ Bachiru Mbàkke fii noo ngi lay xamal ne noo di sant bu baax ci Serigne Bassirou Mbacke mi nga xam ne mooy doomu Serigne Moustapha moom Serigne Bassirou te ngeen teg ko ci commune Firalu mu ëmb commune bi yëpp yàlla nag nga xam ne dara tawut ba ñuy tànnee congé ñu boole ma ca te commentaire ba nga xam ne dara bu ma ci li conseil war a xam ci commentaire bi lépp xam naa dara lu ma ci dara lu mu ci waxtaanewul ak boole ma ci amut kon yow Serigne Moustapha moom Serigne Moussa noo ngi lay xamal ne boo yàlla ca kilifa gu màgg di Serigne Mountakha na xamal na ko sëriñ Moustapha sëriñ Bachirou Mbacke mii di moom sëriñ Moustapha Bachirou day la ko bàyyam santoon ci comité rural bi lépp ma koy doxal rawatina nag ñun jaami jaabaar yi nga xam ne wuyoo wu nu Mbacke Gueye rek la ñuy wuyoo bii nga xam ne moom la ñu amul lu ñu moom te mooy sëriñ ba bisub sëriñ Bachirou sëñ Basiru Mbàkke bii nga xam ne mooy doomu sëriñ Moustapha da cee taxaw taxawaay bu rafet te mënu na ko ñàkk a wax te ba mu yeblee ndaw ñu ñëw fii te xam kilifa yi nekk ci dëkk bii ak yi ñu fi bàyyi ba mu yebalee ndaw la ndaw la dafa dikk ci man mi ko fi nekkal mu ànd ak man ba kër gu nekk la fa war la mu ca man mu def ko ca defin wu rafet woo xam ne wii daw naam yaram te bett na ma itam nag ndax musta am kon nag bu amee war nañ koo seere ci digg mbooloo mi xam ne doxin wi rafet na loolu yow mi nga xam ne yaa fi nekkal sëriñ Muntaxa nga jotañul na ko ndax noonu solo laa men xaamu nan ci yëgal ko sëriñ bu loolu weesoo nag ñu doog a dikk ci nun taalibe yi nga xam ne bis bii day ba na koy tàmbali Serigne Bassirou def na woon da am seen bisu bopp kon muñ ba sa kanam muy muñ ba dogal at yu néew ñu wujji sunu borom ci wujji wujji sunu borom guru bet mu daw sunu yaram ñun ñëpp tiit loo it mur ko yoonu murit nag لفرنسا لتوان وخلوي دارنكو رئيس التالبي سرجن بوكولم جابوني كبكو خدمي كي دارنكو حقس التالبي لكو حدما سبب سيري جيمو جانجا للتالبي لولو كون دايما رفرنس لولو فوقو لسن بس نوان سبا سرج دارا رحمي مان ببوكو بسرجن نوان بسانجم من دجي في برب سانجم di nga fekk sëriñ ba sëriñ baa ko fay fekk ndax bu sëriñ ñu waree xëy moom day fanaani foofu la sëriñ sëriñ nekkoon sëriñ Basiiru sunu sëriñ nee na woon moom de xaw ma lu lu lu Basiiru mënut waaye lu ko Basiiru Mbàkke laaj dana ko dana ko ko jox su ko amee dana ko ko jox su ko amut bu koy sàcc si mbaamu da ko yalwaani dana ko ko jox foofu la sëriñ sëriñ nekkoon sëriñ bi ñu yor nag بين في لبين بين بركة تنعمل نبات نبات كان بدي أجري تور تانك بيشتى بفسر ميدوجا لكن بفسر يريد يتوب أمنا كجسوس كن بين في قوم يخمني أمنا يدور تخم يطالب بخم بخم من كل بخورت ده مني من عمر تنافيان قارئ mu tontu ma ci wallaahi la achim neexee sama kàddu du yegg def na ma yow doomu ji ku la may nga def fii lu la sawara Omar Gueye ma ne ko Gueye mu ne ma di tedd ba dee def àjjana doy na billahi moo ko wax daa ma say tegal ne ma am naa fukki daara ak juróom ak mu ne ñu bayal ma daara ju ne ñetti téeméeri bërigo looloo pour junniy bërigo ma ko aha kay mu ne ma doon ko sëñ Abdou Hakim doomi sëñ Basiru ji tabax bii di jar téeméeri junni duma ko fi bàyyi fii ab jaaruwaay la rek bu nu jaar di jàll bu suwaa daan fi jóge te fan jëm duñ fa jóge mukk te loo fa defu doo ko fekk te fii day bu la yàlla booyee wërsëg loo fi def lu di ko boo dee ci kawam ngay tëdd billaay moo ma ko wax boo ko fi bàyyee luñ luñ ci def ci lu di ko boo dee bu dikkee tëdd ci sa kaw kon loolu mat nay bàyyi xel ñu war a dooni taalibe képp nag yoon wanu sëñ Bass Dieng jaarale woon teg ñu ca te jiitu woon ci sunu kanam di dox nuy topp ci kawam yoon waa ngi ne fi wépp sëñ Bass yoon waa ngi ne fi wépp ku bëgg dem ca moom yoon wa doo ko wàcc ñukk ak ñaq ak ñuqi a yoon wi nag ñukk ak ba ñuq ñuq ba ñuq ñuq la ko war jox sëriñ bi loolu rek kay sëriñ yoon noonu wax dëgg yàlla ñoo ngi sant bu baax ma dellusiwaat ci taalibe yi ak sëriñ Moustapha Guèye bi nga xam ne moo fi sëñ Bassirou Guèye ak rakkam muy ku góor muy ku jigéen sëriñ bi sama xel dal ci yow lool su xel dal ci yow lool ndax da ngaa taxaw taxawaay dundal sa baay ànd say rakk nag te wuuf leen muy ku jigéen muy ku góor wax ji jër guddal ndax sama xol fees na dell nun taalibe yi nan wëlbati ko waat te topp ci suñ doomi sëriñ yi nga xam na ñoo doon sosoon gi ba doomi suñ doomi sëriñ yi dikk ba koo nangu ci suñu loxo ak i sëtam jaadu na jekk na bu ñu wootee te dayre te Cheikh Jam mi nga xam ne mooy premier jawriñ ndax baayam ak taalibe kenn ëppalewu ko man muy sëñ Moustapha Guèye mi ngi gudd de na gudd de sëñ Moussa Guèye mi ko jur fig taali bi fi moom rek la yem ndax daa waccoon ndeyam wacce baayam topp sëñ Bass rek Cheikh Jam bii ni fab na ko waaye daa ragal Cheikh del woote te ñeme del woote te ñeme ndax fi yoon wi nga jaar fi la te boo wootee ku la wuy si nga dem ku la wuy si nga dem te ku bëgg a dem day aw sa yoon wa te yaa nga yaa gone yi nga àndal yëpp mu des nag war ko dafa tas ci sëñ Bass mu dajale woon ñoo nga daaru Minam Saalum ñoo nga jàngooni ñoo nga Touba Bogo ñoo nga daaru Marnaan ca Touba ñoo nga Gede ñoo nga euh, forage ñun ñëpp sëñ Bassirou Gueye rek nag ak koo jàpp si moom sëñ Bassirou Gueye ko yaakaar la yaakaar nekk tey dégg sama kaddu jaadu mu wut njiit te xam ne sëñ Bassirou Gueye rek a moom wur koñ nag ndax kat ak tut tànk leen waaye nag fekkee ne lanu mag ñu waxoon dégg nañ ko bu baax moo leen lu fi dajale nit ñi sëñ Bassirou Gueye kon nag bu bisam ñëwee kenn waru koo seetaan te sëñ Bassirou Gueye nag engrais bu baax la boo ca tegee sa baaraam sa baaraam rek koy tooy waaye boo dee fee ne ba ci ne sa biir ba xuus da koy tooy xet sëñ Moustapha Gueye yàgg sa rek yàlla ngeen fi yàgg jërë ngeen jëf Abdoul Maiminu moom Serigne Moustapha gi yor ak njabootuk Cheikh Ma Baabu gi mu àndal gépp tàmbalee ko ci jëmmi boppam ak sëriñ Sooda moom Serigne Cheikh ma Guèye ak Serigne Moustapha moom Serigne Mor ak Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh moom Serigne Soda mu mag ak sëriñ So Serigne Assane Gueye moom Serigne Soda mu ndaw ak Serigne Moustapha moom Serigne Soda mu ndaw kàddu yi Serigne Mouhaïminou nag mu ngi bàyyikoo ci kilifaam Cheikh Souleymane mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh ma Baabu sëriñ bi noo lay nuyu njabootu Cheikh ma Baabu gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ak taalibe yi yaakaar Cheikh ma Baabu de rafetlu sab jataay tey ngir démb saw doxin daa rafet ndax nit bu fekkee la ko bàyyam santoon da koo def ba wàccoog way juram bàyyee ko taawu baayam mu topp ci gannaawam ba wàccoog moom kon sa jataay bii sa bokk yépp ko rafet rafetlu di la xamal ne Cheikh Souleymane nee na mu ngi jël ab nuyoom akub siyaareem nga joxal ko ko sëriñ Modou Guèye mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Adama Guèye ak rakkam ji nga xam ne ku mbokkal bay topp na la ku mbokkal bay it gërëm nga ko muy sëñ Cheikh Fall Guèye ñii toog ci jataay bii te sa jëmm ji ak bis bi tax koo jóge Porokhane ñëw fii kon serigne bi neena li fi mag ni bayyi won mom lay sam te dinu ko samlo te dinu ko digal moy si aadama bam gisee sëriñ Tuubaa muy kum bokkal dala ca yob te lu ca kenn tek ca kenn seexaar seexama baabu la ca la ca la ca jëkk a ànd ak moom ba fi sëriñ bi sëriñ bi defal ko lam ko defal kon nag noo ngi fàttali loolee sunu bopp di leen ko fàttali it yéen ñu ko bokkal di ko fàttali yoon wi sëriñ tuubaa Seex Aadama mi nga xam ne moom la yàlla dogal keroog ca jataay boobee ba mu amee ndigal lu bàyyi ko ca sun borom kàddu yu génn ci moom Seex Aadama delluwut këram laajuwut xalaat waxtaanut ak mbokk sëriñ bi rek la laaj nuñ koy defee sëriñ bi sant ko mu def kon nag loolu ku ko say maam bàyyee ci ndono ci histoire boole ci yow yor nga liggéey bu rëy te jamono dafa toll ci nit ñi di liggéeyee xel te liggéey mënta ñàkk nit ñi liggéeyatuñ ci kàttan doŋ ci xel lañuy liggéey waaye nag ndokk bi nga xamee ne sëriñ Touba moom fu adduna ndokk toll da ko daf nekk man mën a ak moom waajal na aw ni tamit ba fu adduna toll danañ fa mën a ànd moom mag ña nag dañoo lemoon seeni xel denc génnee seeni xol di joxe seen alal ak seen doole nun nag dañoo lem sunuy xol دنت أكسون ألال جنيه سني خل نخيار دنيو نرو تكو متو خل دولين خامه تسين سلينين أنا نكو واتندو ميميت كباخ أغنيت كيو dañu ñu lool te bokku ñu nit ku yew foko fekk day def lu baax day def lu rafet nit ku yew foo ko fekk lu rafet rek lay def nit ku baax nag lu rafet lu baax lay def nit ku yeewu foo ko fekk day def lu rafet day def lu rafet di wax lu rafet bokkut ak nit ku baax nag moom day def lu baax di wax lu baax te toll nañ ci jamonoy jàng jamonoy durus jamonoy ngàbbu kurus jamono julli jamonoy lépp waaye am na benn baat bu ëpp solo ci nun waa mbaabu muy baatum nangu lu ci waay mën a def te boole woo ca nangu bul ca seenu njëriñ ba sëñ Tuubaa santaane daal Seex Aadama daa nangu kon képp ku bëgg a ci kër yii del nangu jub nag li muy baax baax baax nangoo ko gën nit ku yeewu day jub ba doo ko mën a wax dara te du nangu ay kilifaam dara sëñ su nee na loolu nan koy wattandiku nun njabootu seexam baabu gépp ñu nuy diggal loolu nañ topp suñuy kilifa nan yaakaar suñuy kilifa te nan nangul suñuy kilifa ndax nangu moo ëpp njariñ lu mën a doon xam lu baax li muy baax baax jëf koo ko gën gannaaw bu mu la sante nag sant taalibe yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak say rakk ak sa njabootu bopp niñ la toppee mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba ak barkeb Cheikh Adama ak Cheikh Babou yàlla sàmmal la sàmmal la sa liggéey la dolliku nag ten waroon koo jëkke mooy sunu yaakaar ci Serigne Touba sunu bunt ci sëriñ tubaa muy Cheikh Mahamadul Bachir ak Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy magam te ñoom ñu boole ñaari ndombay tànk fi suñu kanam ndax kenn ku ci ne am na wet goo nekk ba kilifa yéen bokk yaakaar wóolu la ca doyloo la dénk la ko ci wàllu administration ndax Serigne Bass mooy maire de la commune de Typ te loolu ci ndigal la ko jëfe su ma juumul leneen dolliku na ci waaye lu mu ca mën a doon ngërëm ko ko may ak sax ci ndigal noo ngi ñaan yàlla na ko yàlla sàmm ci loolu te jàppale ko ci sëriñ Moustapha mii sëriñ bee ko doy loo dénk ko daarul bi nan mu ne fi suñ kanam di taxawu sëriñ bi di dimbale njaboot gi kon moom it noo ngi koy sant ci tuuru sëriñ bi tey ñaanit sëriñ Tuubaa yombal ab liggéeyam te barkeelal ko te it noo ngi koy santal suñ cantuk bopp ndax dañuy dox ci biir dëkk bi te gis nañ ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal yoon wi gis nañ fi ñu ko teg te xam nañ na loolu am na ci loo xam ne jëmm jëmmi boppam ak jikkoy boppam am na wàccuwaay bu mu am boo xamante ni bii gannaaw bu mu bokkee sëriñ Basiiru ay qualité yi boppam la yoo xamante ni bii moo ko ko may ci muy commune Touba ak chef de village yam fa bokkal nekk kon loolu yi sëriñ bi noonu la ci sant bu baax a baax ndax xam na ko ndax nit kat boo amut lu dul genn kilifa di ko waaje di ko dara joowoo te fu mu dem ci mbooloo sigal la boo jàkkaarloo mu war ngaa sant mbooloo ma sant ko ba mu xam ne yow mii lim lay defal xam nga ko kon nag noo ngi lay sant Serigne Moustapha bu baax a baax ci turu Cheikh Souleymane ak njabootu Cheikh Mbabou gépp ah li ci des nag bokk yi wax nañ ko sëñ Seex wax na ko sëñ sii di wax na ko Obaraay sa wax na ko ana li fi ne mooy nan sàmm li fi ne li fi ne mooy li fi mag ñi bàyyi lenn luñ mën a soppi ba jëriñoo ci amut bu yàlla soppiwut jant bi soppiwut weer wi lam doon def dara du ci soppiku nit ñi nag mën nañoo rafeti xel mën ñoo bari pexe waaye mënuñoo fexe ba bëgguloo yàlla lu mu bañ lu mu lam bañoon mënuñoo fexe ba am luñ liggéeyut sëñ Tuubaa li mu am da koo liggéey ku ca bëgg da liggéey loolu daal mooy kàddu yi nga xamante ni bii sëriñ bi neewoon na su ñëwee suñu ñëwee basant la ba noppi mi ngi lay ñaanal tey soññ boppam ci loolu te ñuy soññ njaboot gépp ci loolu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa sahbihi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sunu sang yi fi teew ñoo leen di siyaare bu baax ci turu Serigne Moustapha ñi nga xam ni moo fi nekkal Serigne Bassirou Gueye dénkoon ma liggéey bi ñu dem ba yegg ci sottital liggéey bi ma koy leeral mbokk yi ak taali yi fin ci jaar ak man di ko xamal ni kenn ku ci nekk la ko war te kàttanam may ko ko def na ko la ca mu yëgale ko yéene ba ma ko tàmbalee ba léegi wéranti wu kenn du góor du jigéen du mag du ndaw te kon am na lu ñu ma muñal loolu dina seeral la ko ah du ñàkk nag njabootu Serigne Touba gii fi teew tey suñuy kilifa ba xam ni ñooy borom jotaay bi ñu yeggale seen cant ci ñoom di ko tàmbalee ci Serigne Moustapha moom Serigne Moussa mi nga xam ni tey kàddu daaru ñu nëm li ñuy wax chef du village ci loxoom la nekk yàlla yàgg ci loxoom te jikko te ngërëmul Sëñ Tuubaa li mu ci sàkk mu am ko nit ñu am ko ah di sant it Sëriñ Basiiru Mbàkke xam naa danaa ko sant mu jàll war naa ñëwaat ci moom ndax dafa am lu ñu seq lu yàgg Sëriñ Moustapha moom Sëriñ Basiiru Mbàkke di suñu kilifa ñun ñëpp batal nañu ak ñoom ñu am ñu jéggu ñu séq te bañ ko tambalé ak légui légui mo ko war fu at ak nangam te ab gap gap bu siam am te ba légui ñu am ndam ko sëriñ bi ñu lay sant bu baax may sant it sëriñ Modou Mbacké moom sëriñ Mourtada moom sëriñ Fallou ñu ci jotaay bi jërëjëf Mbacké woyof lu nga te teewut nga am loo doon ci kër gi te liñ la dénk xam nañ ayibam te teewut nga téyal ñu ko ba mën bokkam ñëw kon jërëjëf nag ñu ngi sant itam sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Saliou moom sëriñ Fallou ñu ngi ci jotaay bi jërëjëf Mbacke bu loolu jàllee ma ñëw ci magi pas-pas yi di ci jité ko nga tay mo tey mooy wa Cheikh Adama sëriñ Cheikh Fall mënoon ngaa toog ca kër ga té du sé sa mak ndax ko xam nga jógee té liggéeyu sëriñ bassir gey bi rek moo tax nga bayiko ñu tok and ak ñu magal gi te it am nga cër bo ci féetewoo boo xamni ni nii ci meer nekk ci bass bi ñu war koo déglu ci jàngi saa bu ñëwé ya koy koy féetewoo ak mbooloo mu àndal ba ñu dellu kon amuloo féetewoo ci liggéey bi jërëjëf Guèye waaye nag ñu ngi dellu di fàttali suñu kóllëre te na waxandoo wax suñu bàyyi ba sëriñ Bassirou Guèye ndax ku la ku ko mën a séen séen na la ku ko séenut bu la séenoon yaa moo la yónni kon nag yàlla nañu la fayal te yàggal la suñu kanam te dëgëral la te it ñu fexe nga ñaanal ñu ba ngërëmam la nga làqoon ñu it ñu làq sa ngërëm jërëjëf Guèye eh, ngeen may ma ma dellu tuuti ginnaaw sant sama ñaari kilifa di suñuy kilifa it di njabootuk Serigne Touba mooy Serigne Abdoul Hakim moom Serigne Fallou moom Serigne Bassirou di lu ne ci kër gi mook Serigne Fallou moom Serigne Abdoul Hakim moom it lu ne la ci kër gi waaye nag damay wax ni ñoom nañu sant yàlla ndax waataayu kilifa lañu waataayu mag lañu li may wax bari na mag ñu ci xam dara ñoom waataayu mag lañu am nañu yaakaar ci seen doxin am nañu yaakaar ci seen ëllëg yàlla ñu suñu borom sàmmal leen te barke leen di mosu leen ci ndox eh, Serigne Moustapha moom Serigne Sora Serigne Moustapha mii ñu ngi lay yóbbantewaat am nuyoo ci suñu kilifa di suñu baay di sëriñ Souleymane ndax laata may gisee ak yow sëriñ Sooda moom sëriñ Cheikh Maguette yi ànd na ak sëriñ Xaadim ab paawam ñëw jox ma ab liggéeyam ak seenub liggéey am ñoom boole ca yeneen wax muy mel ne li nga wax rek ah loolu nga xam ni itam noonu la nekk ak njabootu Seex bu Baaw ba fépp foo la ak ñoom nga am ci ñoom ak day loo bañ ko seen kàddu jébbal la ko ci sa xel mu rafet ak ci sa taxawaayu biiru mbokk yal na ko suñu borom yal na ko suñu borom jàkkal te dëgëral la te barkeel la ba cat bañ la jënd ko jërëjëf Guèye. sant nañ la bu baax yaa njaboot seen njaboot bi nga fi àndal yëpp ah li may waxoon sa bopp nag njaboot gi dégg nañ ko te nit ñun ñëpp gis nañ ne saafoonte na ñoom yàlla na ñoom kon li may di ci bàyyi nit ñun mënuñ ñu rek du am njariñ waaye fu fi waay nekk na xam ne sant nañ rawatina suñu bàyyi nag ñi nga xam ne moo leen jiite waa kër seen mbaam yëpp di sëriñ Abdul Mooy mu moom sëriñ Moustapha Gueye waay ñu ngi sant sëriñ Elimane Gueye moom Serigne Abdou Gueye moom Serigne Mère Kassé ak Serigne Limam Gueye moom Serigne Ndam Gueye moom Serigne Mère fi teewee waa ko Serigne Mère Kassé yëpp teew nañu ak it nii rek la Serigne na saxaar li nga xam ni mooy def kër Serigne Bassirou Gueye xolam seet na buy seen teewaay ñoom njabootu jëm ah ba fekk nag ni nit lu mu mën a def ak lu mu war a war war jërëjëf moom baax na ci ndax sama rak yii te ñu ñëpp suñu famille di suñu kilifa te muy te xam ne ñoom ñëpp Cheikh Adama seen waajur ak Serigne Bassirou jéewul ko ñoo bokk benn waajur muy seen liggéey dayoo ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi te it ku fi xëy ñëw bu ko tegee ren bi ñëw baaxul woon ren bi ñëw ñëw ren ñoom liggéey kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm maa ngi sant ñoo xam ne ñuy wax dëgg yàlla ni ma leen di gisee waxtu njii ndax dëgg rek a neex na yàlla moom moom dëgg wax dëgg yàlla gisuwul ñu ko moom moom kon nag ñu ngi doon nag nañ góorgóorlu ndax léeg bu ne day am borom te njabootu Serigne Touba yëpp benn lañu te taalibe yëpp benn lañu Serigne Moussa yi ak lu mu mën a ak rakkam yi bu bis bi jotee ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen soxla yenn fi dogoon ko tagaat yu bare bare bare la du mel na bu ñaareel kon nag ñu ngi leen bu baax di leen gërëm ngeen déggal ma ci jotaay bi nag ndax wax it mënut a ñàkk ndax sëriñ Moustapha bu woote ay mbokkam wuy si ko taalib bi wuy si ko ay sëriñ wuy si ko tey war ngeen dana waxtaan loolu soo ko gàttalee dafay mel ni te lépp mbokk na kon nag mboolem doomu kilifa ju fi teew xam ne dañ fee ñëwoon dellu ak ñi fi toog ñëpp sëriñ bi nee na ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen xamal ne ko loo xam ni su leen ko mën defal dana ko te la ma la des mu bu yéene su pas-pas di fi ne ndax sëriñ bi moom ñaari njaboot rek la amoon muy njabootu dara njabootu pas-pas te njabootu pas-pas ñëpp xam nañ ni moo gën wér ndax mooy sa diggante suñu borom moo koy xaalitam mais xam ni lii ma dégg sëñ si di wax ko na ngeen ko def mu ab soññee te it moom la te nit boo àndee moom te naxante wu leen da ngeen bokk jariñ waa ànd am na naxante moom la koy toog sama gi mënu ko wax ci mbooloo te loolu dajul yàlla nañu ci yàlla musal kon nag nañu am ci am dëgg kenn ku nekk bu bis bi ñëwee fan war a féetee ak la war a borom ak la ko war mu mel ni moom kese la war a war yu mel noonu bu ñu ko lépp baax waaye mën na wax fii ma toog amagul benn taalibe boo xam ne Serigne Moustapha mi doon woon na moom mu seqal moom liggéey bi mu faxasal bu tey nag melokaanu jamono ñëw na liggéey ba amoon wax nga ko jafe waaye suñu borom sax leen lépp alhamdulilah rabbil alamin kon sëriñ ne leen seere lool waaye nag nañ góorgóorlu gën a jàjjuwaat euh, xam naa sëriñ Sidi moo ko waxoon sëriñ Cheikh loolu am na ku mu ci benn tudd ko waaye loolu dafa am njëriñ ci biir mbooloo su fekkee da am an defo am ku ci benn ko am loo xam ne dafay saxal di ko def ñu ko jërëjëf ba ak ay moroom di ko rek xam-xam bu dee la ko wax loolu la na te mooy li mu wax daal dina def lu baax loolu moom war na kon ñun ñëpp it nañu bàyyi xel ci loolu tey fu ma taxaw ci yéen di leen wax góor leen góorgóorlu ci daayira yi lu kenn mënut soo àndee ak ay mbooloo di ko def dana yomb ci moom kon nag nañ leen góorgóorlu ci daayira bu baax nañ leen góorgóorlu bu baax du tey nag sant nañ leen bu baax ndax it nag li fi nekk lépp nag yéene la alaaji baa boo xam ne li fi nekk taal bii rek ko def te it mënuñu leen a fay seen tubaab leen ñu fay kon nag waaye lu ci mën a nekk na ngeen gën a góorgóorlu te gën a laxasaay te delloo siwaat seen xel ci njaboot gi nga xam ni moom la seen tubaab doxali seen diggante ak moom mu njaboot sëriñ Bassirou Gueye yi ndax nit ku mën a doon sa diggante ak moom pas-pas bu ko xasee lalu war ma war na ca te it ngeen sàmmonte dëkk bi ngeen yar ci gone yi ndax képp magam sëriñ ba Guèye na fii am yeneen ñëngu yu nekk dëkk bi wuute ak loola ku jóge woon ci barab ñëw di gan gis loola di delluwaat loolu rafet te am na xam te baaxul nañ jox war na yi war na dëkk bi sëriñ na fii jamono nit ku ndaw dëkk bu mu sanc day ko am njabootam am njaboot ñu ne ko di fa seey lu ñu tere ku baax kenn waru ko ko nañu sàmmoonte ak war may dëkk bi lu war a nekk su loolu dalee maa ngi gërëm ñoo xam ne nii waxoon naa ko fi daaw danaa ko dellu waxaat dama ne leen su seen pajub aajo ne woon sama loxo tey ñu fanaanoo ko muy sët sëñ Bassirou Gueye liggéey bii ñuy def kenn mënu leen ci li daal sama loxo lépp fi la jóge te kenn mënu leen waaye nag li ngay xam ni nit bu amul lu dul benn mbir benn garab ñu jox ko ko bënd jox ko ñu ko jox suufam genn garab benn xob bi ca di ci suuf te ko xam na xam ni loolu mat na gàgg kon nag lii ñu am nga xam moo nga ñoom muy sëñ Bassirou Gueye te jëf na ba tey dara ñu taaral li mu jëfoon ak sàmm ko mi ngi des ci seen loxo di jëm ci seen loxo lu ngeen takk woon na ngeen takk man de ci njabootu sëñ Bassirou Gueye laa bokk am naa njaboot waaye suñu demee ba àgg ci fi ngeen toll suñu ñëwee duma ci bàyyi kenn ñëpp a ci bokk maa ngi ciy soññ nag ñi ma ko seqal ñëppit na su loolu jàllee ma dollu ci jigéen ñi ngeen bokkal kër gi jigéen yi njabootu sëñ Bassirou Gueye yi ndax kenn ku ci nekk bàyyi nga fa nga nekk ci say borom kër ñenn ñi sax am ci ñoom dañoo wax ba juug ak seen seen borom kër loolu pas-pas la ak yëg gu ñu am ci seen waajur ak sopp ku ñu am ci moom boole ko ak di ci def seen alal ak sonn seen seenu ñaq ba nga di ko gis kon seen bàyyi yal leen fay te njaboot gi ngeen am bañ di seen suñ borom leen ba fañ leen a ñu leen fa te ko ah mel na ni kàddu yi daanee ko jot na ngir ñu jox suñu kilifa yu ñaanal ñu waaye dafay fekk ni dafa am loo xam ne bu dajee ci ab dëkk ñëpp wax ko bu mbooloo mépp daje na koy wax ci mbedd yi sëñ Bassirou Mbacke jërëjëf sax dégg na ko kon nag sëñ Bass jërëjëf ah du tee nag am na lu suñ borom def jamono di ko doxee loolu nga féete ñu ca na nga fexe ba buñ ca ñëwee suñ menn morom ndax loolu bàyyi nañ ko solo ak lu mu mën a doon nag bu dee lu nu ñu junj bañ koy gis te ak seegut ak lu nu ñu junjegut war koo am te ak seegut itam na nga xam ne solo la nga yitte wooyu itam suñ diggante yooyu itam loolu na nga ko suñ loxo luñ ca mën nañ ko def te ay war du ca am bu soobee yàlla kon nag Serigne Moustapha ah liggéey bi nga doon liggéey loo mi ngi noonu tàmbalee na ci rafet te maa ngi yaakaar ni jeex na ci rafetal itam ñi ma ko séqal ñëpp la leen ci war ci njabootu sëñ Bassirou Gueye bu góor gi ak jigéen ji yëpp ànd nañ ca man te kenn fakkasalu ma ci kenn waxuma ci loo xam ni yëkkati na sama xol kon nag ñoo ñu ñooñu jërëjëf rek laa leen mën a wax te yow mu nga ko doon liggéey loo ma teg loola ngërëm loola sa loxo xamal na ne defee nañ ko noonu kon nag ñooñu sant ñi ñëpp di gërëm doomi seex yi fi teew yëpp ak mboolem ak sëriñ Tuubaa gi fi teew yëpp yàlla nañ ko fekk ay déwén déwén kenn bañ a te lépp luñ def suñu boroom nangul ñu ko te barkeel ko jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala ginnaaw ñu sante yàlla julli ci yonant bi ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci ndigalul sëriñ Moussa mi nga xam ne moo ñu fi yebal suba laa ko woo ne ko sëñ Moussa daf maa woo biig ne ma naa fi ñëw naa ko fi ñëwal ma lay laaj nu ngeen ko bëggee xam ne xëy na ci sa yërmande naa nekk wenn yoon kon day mel ne ci ndigalam lay waxee lim ma yónni woon itam mooy ñëw ci jataay bii nga woote ngir sëñ Bassirou Gueye woo say bokk woo sa bokki taalibe waaye mu ñëw ngir seereel leen sa digganteeg moom say bokk yóbbaale ko sa bokki taalibe itam yóbbaale ko seere si nag mooy mu ngi mel ne lii ngeen wax ci sëñ Bassirou Gueye léegi nga xam ne lu mu am looloo ko ko may muy jëfe ndigal te kenn mosu koo fekk ci lu ñu koy teree dafa wax ne moom diggante sëñ Moustapha mii loolu moo fi dox lépp lu mu ko digal ma ngi koy defee na mu ko bëggee te gisu ko ci dara ci lu mu koy teree kon day da koy seereel bokk yi fi teew di ko seereel taalibe yi nga xam ne ñoom la bokkal kër gi itam ngir ñu xam ne lañ lañ war a séq muy la mu war a séq kilifaam séq na ko moom kon nag ndokk ba ngeen xamee yéen tamit loolu ba ñi fi jël kàddu ñëpp soññi seen soññi ci loolu la jëm muy fexe lañ war a séq ak moom ñu séq kook moom ngir yoon nañ war a doxe ñu man koo doxe kon ñu leen koy seereel bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm ndax ginnaaw yonent bi ñun ñii rek mën nañ seere ci loolu ndax li ñu doon doon gone day ci moom bañ xamee ba léegi xàmmee ànd ak nekk ak moom cër ba suñ ba suñu soit di nekk sax cër ba mu ko jox moom la ñuy jox ñun ñii rawat na ba ba mu ko gisatul kon loolu loolu suñ Moussa say seere ñun ñii mën nañ ci seere kon sëñ Moustapha wax ji du jar guddal ginnaaw dañu fay ñëw ci ndigal kàdduy ndigal lañu yoroon jottali ko te ndigal li cant la woon ak ngërëm ak seere yooyu rek kon jëru guddal waaye dinañ sant nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy njaboot gi ak taalibe yi nga xam ne rawat na ñi dëkk fii ci dëkk ci dëkk bii nga xam ne yàlla dañoo nattu boole ñu ak ñoom ngir ñu war leen a taxawu ci geneen fànn te noppal ñu lool ndax teguñ ñu benn coono. muy ndax ñi dëkk fii teguñu ñu benn coono. te luñ war a lu war a dox suñu diggante ak ñun itam ngi koy def. ca war seen diggante ak ñoom ñi ngi koy def. kon laaj na bis bii. laaj na bis bu mel nii. man itam ma seeree leen loolu. mu seeree leen loolu. ñu xam ne. ñu xam ni. seen xel mën naa dal. seen xel mën naa dal. yéen ñii seen kilifa. yéen ñii sëñ Moustapha yéen ñii seen kilifa. xam ne. xam ni. la ngeen bëgg ci ñoom. xam ni la ngeen bëgg ci ñoom. di ko sàkku ci ñoom. di ko sàkku ci ñoom. muy ngeen ñu ñu ñu nekk ci ndigal. muy ñu nekk ñu tënku ci ndigal. saa su ne. saa su nekk. ña nga ca. ña ca. sono luñ ma ci dara. sono luñ Cheikh Mouhamadoul Bachir mu sëñ Moustapha ci dara. te la ñu war a def lépp tam ña ngi koy def. te li ñu war a def lépp ña ngi koy def. daa fekk ne nag. nee na dafa fekk ni nag. ni ma koy waxee. ni ma koy waxee. bu fekkoon ne lépp dafa nekk suñu loxo. bu fekkoon ne lépp dafa nekk suñ loxo si Amadou Bachir sëñ Moustapha mooy wax. duñ duñ ñëw fii. duñ ñëw fii. ñuy bëgg dara. ñuy bëgg dara. waaye nag. waaye nag. na ko sëñ Moustapha waxe woon. na ko Cheikh Moustapha waxe woon. ba mu ñuy jox dëkk bi. ba mu ñuy jox dëkk bi. mooy fuñ jotiwut. mooy fuñ jotiwut. nga jéem faa joti. nga jéem faa joti. ngir mën a jot. ngir mën a jottali seen i kaddu. loolee itam. loolee itam. mooy suñu yitte. mooy suñu yitte. ba tey jii. ba tey jii. moo tax. moo tax. saa sune saa su ne. ñuy jéem a yokk suñuy jéegoo ñuy jéem a yokk suñuy jéego. ngir la nga xam ne. ngir la nga xam ni moom lañ ñu digaloon ci moom lañ ñu digaloon. ci njaboot gi ci njaboot gi. ñu jéem koo matale. ñu jéem koo matale. yoon woowu rek lañ jaar yoon woowu rek lañ jaar. bëgg nañ nag. bëgg nañ nag. saa su ne itam. saa su ne itam. lu mu métti métti. lu mu métti métti. ñu ñu ciy gunge ñu ñu ci gunge ndax suñu bopp taxu ñu jóg ndax suñu bopp taxu ñoo jóg ginnaaw njaboot gi tax ñu jóg ginnaaw njaboot gi ñoo tax ñu jóg buñ dee geestu di leen gis buñ dee geestu di leen gis suñ xel dana dal suñ xel dana dal danañ ñeme ñu jëm danañ ñeme fañ jëm ba la nga xam ne moom moom moom moom lañ war a sàkku ba la nga xam ne ni moom la ñu war a sàkku ñu mën koo sàkku ñu mën koo sàkku mu jëm si ñoom mu jëm si ci njaboot gi maa ngi sant bu baax mi ngi sant bu baax di nuyu sama kilifa yi. di nuyu kilifaam gi. Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha. moom laa waroon a jiital sax. moom laa waroon a jiital. waaye moom xam na. waaye moom xam na. kon. kon kon. Euh, danañu ko jégal. danañu ko jégal. sëriñ Fallu. sëriñ Fallu. Cheikh Abdou Hakim sëriñ Abdou moom sëriñ Abdou Hakim ñoo ngi leen di ziyaare bu baax ak sëriñ Abdou Hakim moom Fallu ñoo ngi leen di ziyaare ñoo ngi leen di bu baax di leen sant di leen sant ndax bu ngeen ñëwee fii ndax bu ngeen ñëwee fii da ngeen fii bokk bokk day mel ni ñun ngeen fi li ngeen fii bokk bokk dafa mel ni ñun ngeen fi ñëwal kon ñoo ngi leen ci sant bu baax ñoo ngi leen ci sant bu baax ndax xëy na bàyyi ngeen ay yitte yu bari ndax xëy na bàyyi ngeen ay yitte yu bari waaye def li ngeen li ngeen war a def waaye def la ngeen war a def muy ñëw ci seen i bokk muy ñëw ci seen i bokk soññante ak ñoom soññante ak ñoom loolu danañu dimbali ñu loolu danañu dimbali ñu ñëpp kon nag jërë jëf kon jërë jëf maa ngi leen sant bu baax maa ngi leen di sant bu baax jërë jëf jërë jëf dama koy wax fu ma dem ci mbooloo dama naan leen daayira juróomi tee ñoo ko ñetti yee koy defa ñetti yee koy defar ñaar yee koy yàq mat diglu nag ab daayira da ngay teel teew moytu tayel ak tarde moo yàqub daayira sëñ bi yow mbooloo mépp yow la ni diglu rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu bokki taalibe yi fi teew yëpp ci turu cheikh mouhamadou muntaha mu cheikh ahmadul bachir ak njabootuk cheikh ahmadul bachir gépp daanaka sax lii Cheikh Mouhamadoul Bachir Cheikh Moustapha wax doyoon na ndax kenn ku nekk ci ñun bu jëlee kàddu rek ëmbaale na ñi ci des ñëpp kon ñoo ngi sant bokk yépp di jël cant googu di ko jox Cheikh Moustapha mi woote bis bii mu jëmale ko ci njabootu Cheikh Ahmadul Bachir Gueye gi fi teew gépp te njëkkee nag ko ci seen baay bi toog di sëriñ seex Fall Gueye li nu fi dégg moom dal nam xel kon nag ndok ndax moom wàcc na de ànd naag seen baay ba gisatu ko wante nangu na leen a wuuf waaye nangu na leen a wuuf de ca cig taalibe rek nag la leen wuufe tekkiwul benn yoon laxasaayam tekkiwul benn yoon ak laxasaayam kon jëfam jii tey kon jëfam jii tey firnde na ko firnde la ci kon nag wante na leen suñu borom boole bàyyi kon nag yàlla na fi suñu borom boole bàyyi ca dëgëral leen ca dëgëral leen te sàmmal leen ndonali te sàmmal leen ndonali li ci am solo nag mooy tey li ci am solo nag tey mooy nii ñu ko déggee mooy nii ñu ko déggee ci njaboot gi ci njaboot soññee muy soññee ñu soññee ñi soññee ca ndaw yi gën a soññee ca ndaw yi gën a soññee kon nag alhamdulilah rek doy na ak cant kon nag alhamdulilahi loolu rek doy na ak cant dañ xamee ne am nañ ndono ba nu xamee ne am nañu ndono ca war nañoo sàmm ndono li ca war nañoo sàmm ndono li suñ borom doolee dimbali ñun ñëpp kon yàlla nañu ci suñ borom doolee dimbali ñun ñëpp ba sëriñ bi gàttandul ñu boppam ba sëriñ bi gàttandul ñu boppam ndax nii ñu ko waxee nag ndax nii ñu ko waxee nag daa mel ni lu law la. ba kenn xamatul foo jëm. ba kenn xamatul foo jëm. wante ku xam fa nga jóge waaye ku xam fa nga jóge xam la la may. xam la la may. boo ko téyee. boo ko téyee. mën ngaa bañ a umpule. mën ngaa bañ a umpule. fa nga jëm fa nga jëm. kon nag loolu rek ci am solo. kon nag loolu rek moo ci am solo. jamono lu mu nëx nëx. jamono lu mu nëx nëx. ak lu mu nuru nuru lu yàqu. ak lu mu nuru nuru lu yàqu. ña daan baax ña ngay baax ba léegi. ña daan baax ña ngay baax ba léegi. ndax lañ daan wut. ndax lañ daan wut. sun borom jëlu ko yóbbu de. mi ngi fi mi ngi fi. ku ko sàkkoo nañ ko daan sàkkoo ku ko sàkku nañ ko daan sàkkoo. am ca lu doy sëkk. am ca lu doy sëkk. la ci ëpp solo nag. la ci ëpp solo nag. mooy ndono moom. mooy ndono moom. da ngay fexe ba sàmm ko. da ngay fexe nag ba sàmm ko. bañ a dox sa digganteeg fañ ko jëlee woon. ba a dox sa digganteeg ñu ko jëlee woon. nañ ko sàmmee ba teg ko say loxo. nan ko sàmmee ba teg ko ci say loxo. nga sàmm ko. nga sàmm ko. ba say doom. ba say doom ak say sët. ak say sët. mën koo jëriñoo mën koo jëriñoo mën koo jël. nit ki nag. nit ki nag. du def lum gisut. du def lum xamul. du def lum xamul. kon nag kon nag. lépp ci ñun rek lay tàmbalee. lépp ci ñun lay tàmbalee. bu ñu sàmmee lañ war a sàmm. bu ñu sàmmee lañ war a sàmm. doxalee ko nañ war a doxalee. doxalee ko nañ war a doxalee. ca bañ a yàkkamti àddina. ca bañ a yàkkamti àddina. suñ borom mën nañoo dimbali. suñ boroom mën nañoo dimbali. aw yoon moom. aw yoon moom. aw yoon rek lay doon. aw yoon rek lay doon. tànk bu ca tegee. tànk bu ca tegee. dana àgg ca dëkk ba. dana àgg ca dëkk ba mu jëm. ca dëkk ba nag. dëkk ba nag. mooy dëkkum ngërëm mooy dëkkum ngërëm yàlla nañ suñ borom doole dimbali. doole ñoo taxawu. doole ñoo taxawu. ba lépp loo xam ne nii. ba lépp loo xamante ni si. bëgg nañ koo sàmmal sëriñ bi. bëgg nañ koo sàmmal sëriñ bi. dimbali ñu ci. ba mu dimbali ñu ci. ba ñu am kàttanu. ba ñu am kàttanu. man koo sàmm man koo sàmm. comme seytaane du jóg ci ñu mukk. comme seytaane nag du fi jóg mukk. yàlla nañ ci mucc. yàlla nañ ci mucc. ni ci sëriñ bi muccee ni ci sëriñ bi muccee ci ak njabootam gépp ci ak njabootam gépp nag yaakaar naa k ci góorgóorlu yaakaar naa ku ci góorgóorlu nag man caa mucc man caa mucc kon nag dellu soññante rek nañ dellu soññante rek eh, sëriñ ci sëriñ ci wala ñi ñi tuddé sëriñ ci wala ñi ñi tuddé sëriñ ci jéem gëna gor a góorgóorlu jéem a gën a góorgóorlu tege ci yoon gëna a tege ci yoon ba ba ñi top seen gannaaw ba ñi top ci seen gannaaw mëna gis fuñu tek seen mëna gis fuñu tek seen tank talibé yi talibé yi nak nangu ko nangu ko ndax mom jëwriñ rek la ndax mom jëwriñ rek la ak kam yi jëwriñam ak kam yi jëwriñam wante nak sëriñ bi mom ben rek waye mom sëriñ bi mom ben rek la muy cheikhul khadim muy cheikh amadou bamba khadim rasoul ñun nag. dañ cee am cër boo xam ne dañ cee am cër boo xam ni. jàddu yoon waruñu. jàddu yoon waruñu. mission nag boo ko amee. mission nag boo ko amee. lu mu diis diis diis. lu mu diis diis diis. ak lu mu nuru lu ñagas ñagas. ak lu mu nuru lu ñagas ñagas ñagas. lu mu nuru lu metti. ak lu mu nuru nuru lu metti. ca ka ko doon jëfee. ca ka ko doon jëfee. ndam rek la ko jural. ndam rek la ko jural. kon nag ñun kon ñun xuus rek ci biir la ñu war a def. sàmmal ko ndono loola. sàmmal ko ndono loola. sàmmal ko mission ba nga. xam ne sàmmal ko mission ba nga xamante ni si. moom Cheikh Mouhamadul Bachir. moom Cheikh Mouhamadul Bachir. ndax ku mu yar ci loola la yar. ndax ku mu yar. ku mu jur ak ku mu yar ci loolu la yar. ku mu doy référence it. ku mu doy référence it nag. ci lool nga gis ci moom nga gis ci moom. kon nag yàlla nañu suñu borom doole dimbali. kon nag yàlla nañu suñu borom doole dimbali. doole ñoo taxawu. doole ñoo taxawu. Eh, sëñ Moustapha it ñu leen dalal seen xel rek. sëñ Moustapha ñu ni seen na seen xel dal. njaboot gi yëpp njaboot gi yëpp muy njabootu cheikh adam, muy njabootu cheikh adama muy njabootu cheikh mu muy njabootu cheikh mu cheikh malik muy njabootu cheikh malik ñi ngeen ko àndal yëpp ak ñi ngi ko àndal ñëpp xam nañ ne xam nañ ne am ngeen cër ci sëñ basiru am ngeenub cër bu rëy ci sëriñ basiru seddoo ngeen sëñ basiru seddoo ngeen sëriñ basiru it nag sëñ basiru na leen sëñ basiru it na leen kon nag ñun amuñu kon nag ñun amuñu genn yitte genn yitte gudul sàmmal loolu sëñ basiru jurul sàmmal loolu sëñ basiru ca it yaakaar nañ sëñ Abdou sëñ Fallou mii ngeen ci yaakaar naa ni sëñ Abdou ak yi mum sëñ fallu mii ak sëriñ fallu mii ñu fi tudd léegi ak ñeneen ak ñeneen ñi mel ni ñoom loolu rek mandarga na lépp waaye jërëjëf yàlla na yàgg ca sax te suñ borom gërëm lépp di leen doolee dénk nag si Ahmadoul Bachir sama rakk ji xam naa ne nag xam naa ne nag la ko war yëpp ma nga ca la ko war yëpp ma nga ca ndax fa mu ko tàmbalee woon ndax fa ko tàmbalee woon moo gënoon a moo gënoon a metti di jóge ci communauté rurale ba dem ci commune ba dem ci commune ci sëñ Moustapha kat te Cheikh Moustapha Al Bachir lam ko tànne woon lam ko tànne woon tànne woon ko ay moroomam tànne woon ko ay moroomam jubluwu ci won lu dul jubluwu ci woon lu dul mën a yor rek mu mën sam lim yor rek ndax dañoo nek ci àddina ndax dañoo nek ci àddina am luñu fi bayé am luñu fi bayé muy jaamu yalla muy jaamu yalla wante nag war nañoo liggéey waaye te war nañoo liggéey te it ay nit rek lañ koy seqal kon ñu bayyi sëñ mu magalé wante ay nit rek lañ koy seqal ci nit ku ci nek barab ba nga war a toog boo ko dénkaane rek mën nga caa am lu la metti ca doo ko yëg mën nga am ci lu la metti ca doo ko mën a faxas loolu nag moom mu tegtaloon ko ca sëriñam bu tedd ba di Cheikh Mouhamadul Bachir ci tegtal bu mu ko amoon ci war-waru àddina yu ñëwoon ci moom ca njaareem ba mu ci amaate yeneen i jafe-jafeet mu laa di jëlaat tegtal booba ci la jëlee woon njabootam gi jiite leen ci communautaire bi wante nag wuti ci woon ngir pal ndax xam na la seen maam defal moo ëpp wante nag nit day def loo xam ne nii fa ñuy lënkale ay mbir di fa taxawoo mbir di ko fa nosee boo ko wuutewul ba dañ laa jëw ba jëw gay gëndaloo wala di la jekk walla di la not da mën a taxaw sa bopp ba xam ko ba saafara ko balaa ñëw loolu rek la woon képp kuñ ci teg ci barab rek dañoo bëgg nga ànd ak taalibe ya dox doxin kon nag alhamdulillah ba nga xamee ni moom seere na ne njaboot gépp ngi ànd ak moom ci loolu njaboot géppit seere ne moom mi ngi ànd ak ñoom ca na nga xam ñoom lañ leen ko dénke woon kon yàlla nañ suñ borom doole defal ndam euh, nit nag day def loo xam ne nii boo ko tegee ci barab di ko yabal muy jóge ci barab di dem ci feneen ña ca gannaawam rek lañ koy xoolee ca lañ koy rusee ca lañ koy ragale ca lañ koy wegee ndaw nag boo ko yebalee ci barab téye ko nañ ko war a téye ñu xam ne nii téye nañ ko nañ ko war a téye moom it mu yëg ne am na ñu bàyyi ci gannaawam ca loolu rek laa mas a xam ci moom nag ndax du liñ bokk rek a tax wante dañoo yàgg lool ca umpalewuma ci moom lenn ca amu ci lenn loo xam ne dana ci dugg wala mu koy yóotu wala mu cay wax te demul ci mbokk yi nga xam ne jàpp nañ am na fu ñu ko mën a féete mu waxtaan ca ak ñoom ba am ca seeni xalaat jàpp ne xam ne lu jub la wala lu jubul la bu ca ñëpp ànde moom rek mu xam ne lu mu war a soobu la waaye nag dana ca joxe deretam dana ca joxe ndax der der mooy deret rek loo xam ne mën nga caa dégg lu nekk wante lépp dala koy jarañ ngir mën a réussir sa mission loolu rek la kon nag nañ doolee jàppante ci loolu euh, àddina moom yor nay melokaanam waaye nag luy baax moom la doon baax démb mi ngi baax tey te day baax ëllëg it ñàkkuñu benn valeur dafa am ñu ñàkk valeur am ñu leen roy bañ jàpp na ñun ñàkk nañu valeur wante am nañuy valeur ndax la fi sëriñ bi defoon tuxuwul mi ngi fi àddina nag li ci bon mooy bu ñëpp dawee jëm fenn nga ne faaw ma daw jëm fa wala bu ma fa toogee damay wéet boo nangoo wéet bu yàggee ñoom ñëpp bu ñu dawee ba xamatuñ fa ñoom danañ dellusiwaat fekkaat la fi nga nekkoon ci booba day fekk yow doo soppi sa toogaay kon nag nañ sax ci li ñu war a sax rek muy doon ay taalibe Serigne Touba yu nangu Serigne tubaa doon seen lépp tey ak ëllëg bu boobaa lépp lu ñu bëgg danañ ci mën a jariñu kon laa ñu ngi ñaan ñëpp ñu gën a bàyyiwaat xel laal bu baax a baax a baax yoon wi Euh, dafa mel ne li sëñ Moustapha Gueye doon wax sax dafa am lu ci am solo luñ dul xam ndax xel boroom xel mi bëgg a jariñu cam xam ne am na noo xam nii rek lay jaar ba mën a jariñu ba ñu ci def kemt lay kàttanam ba ñépp gëm ne ku baax la ba mën a ànd ak moom waaye nag comme ba ñu ñëw dafa ñëw ci yow akum xelam dafa am fu mu la fekk ca loolu muy dëgg joo xam ne ca nga sax moom nga gis moom nga xam moom lu mu ci indi bu mu la bàyyi loo la nga nekkoon dëgg la de boo saxee ca la nga nekk bu dee xelum seytaane dana randu bàyyiwaat la fa yow bàyyi la fa nga toogaat fa waaye nag waxtu woo bàyyee la nga nekk ba jàpp ne na nga ko war a fekk ci xelam mooma bàyyeetoo xel fi nga jóge woon day daal di indi jafe-jafe dafa am mbokk moo xam dañuy waxtaan mu nekk yeneen wàllu wax ma ne ko nag ci sëriñ bi sax lañ doon wax rek ciy misaal ma ne ko yow de damaa jàpp ne ni xëy na wàllum nijaay ngay féete ci man ndax da ngaa yor koo xam ne nday la ci man wante yéen da ngeen am complexe ndax dama fee gis ñoo xam ne bu ñu jógee fii dem ca naari rek fàtte ne am na lu ñu jëlee woon fii ca fii lañ xamee lépp fii lañ manee lépp bëgg koo dellu si loolu nag ak complexe la wante bu la biree na ñun de li ñuy defal sëñ tubaa bu sëñ tubaa defuloon suñ borom ni mu ko def ñun duñ ko ko def mu ne waaw loolu xam naa ne moom bu sëñ tubaa defuloon nii mu def suñ borom du ngeen ko def ma ne ko nag kon xam nga ne lu ñu defal suñ sëñ tubaa rek suñ suñ borom la kon nag bu ngeen tënkoo foofu jël seenum xel rafetal ko ca rafet njort ci seenug ëllëg lépp mën naa baax kon nañ doolee góorgóorlu am nañ ndono lu mat ndono la ca nekk na la ca des kay mooy sax ca ca xam ne lu àddina wëlbatiku wëlbatiku ndono li ñu am moom du soppiku buñ ko téyee nañ ko war a téye rek suñ borom mën nañ cee dimbali gàttan lu ñu boppam kon ñu laa ñu ngi dolli baatu soññe rek lay doon gannaaw bañ ko soññee suñ bopp xam ne leneen lu ñu def lu dul sax ci li ñu sëriñ bi bàyyil wax dëgg yàlla gorewuñu ndax dañoo fekkoon maam yi ak mag ña ànd liggéey ba loolu nosu kon nag ñooñu seet si woon dañoo seey woon ci biir sëriñ Touba kon nag kuy seet ku nekk wala luy xew lu ci nekk loolu ñun mënees na caa bañ a bokk ndax am nañ ndono donn woon nañ démb tey doog a dikk kon nag kiñ liggéeyloon tey démb tey doog a dikk ca ka ko doon wutal xam fa ñuy wutee xam nañuy wutee nga bëgg a jël koo xam ne jamono donc ko indi sa kaw nga ne léegi na mu def ba jaar aw ñall la naa jaar ca ñall woowu boo réeré yaa réeral sa bopp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu